kooku ngay ko wax barki leeru arxuraan bu ñu jàkkaarloowee bu dee du ma la simmi ba nga set solal la sama jipp man lu askanu jaraxasoo ma naan ko barki Serigne Fallou Mbacké te bul ñaan yàlla ma teg sama tànk Europe bu ma tegee sama tànk Europe ma nokku la ba nga tëdd barki sëriñ Touba Mbacké man bu ma tegee sama tànk Europe ma dóor la ba nga tëdd ndax boor jigéen nga basta maa ngi Maroc j'ai pas man maa ngi Maroc j'ai pas ma wax leen yéen ñi bëgg Mame Ndiaye Savon wax ju bon dëkkul fu mu jëm wax ju bon dëkkul fu mu fu mu jugee la cosaanoo gis nga nit boo bonee dangay bëgg a bon ak ñépp nit boo dee taxawaalu ba ñu biiral la dangay bëgg ñu ta ñu biiral ñépp Mame Ndiaye Savon jël na vol damay toog yàq deram eh bu la neexee neel maam Ndiaye Savon carte la yor dañ koy nangamtaan dëkk bu ne ça me dérange pas ça me dérange nii xam nga xale bi ngay waxal xale bi daa ñàkk jom barki leeru alxuraan xale bi ngay waxal yëgatul métti ci àddunaam xale bi ngay waxal yëgatul dara loo xam ne da koy déstabiliser boo xam ne da koy dégg rek jooy man sama xolu jooy moo toj ndax xam nga lu tax yàlla teral na ma bu la neexee waxal lu bon bu la neexee waxal lu ñaaw xam nga nit ñi ñoo la bàyyi kenn seetaanatu la nga bëgg bës jaarale ko ci man waxal lu la saf afficheel sama yaay waxal lu la neex ci àdduna waxal sama yaay dëmm la waxal sama yaay ay fameem ay lekkkatu nit la saama nii soo saama nii foi munoo maa tere liggéey te yow li ngay wax foofu ngay toog di ko wax